moom ajaratu ne na mbaay moo toog nii en bleu nekk ci liggéey waaye bokkoon ci xeex bi ñu sant nag suñu kilifa suñu mentor comme ni ma ko waxee démb suñu xarit suñu dëkkandoo ñu dëkkandoo mbodd 3 fii ci Sam Notaire di la président Alaaji Malick Gakou ah sant tamit conseil Yewwi Askan Wi yëpp nga xam ne tey ñoom ñoo war a lii ci seenum ndigal lañ ma wax démb barki démb ne ma démb bu ñuy installé dañ leen ko def le maire honoraire de la ville de Guédiawaye kon moom mën na dégg monsieur le ministre nekk na ko ñaari yoon moom El Hadj mi ngi dégg monsieur le président ni ki démb nag waa waaye dolli nañ ko ci beneen ndomba tànk muy monsieur le maire te loolu tam moo ko liggéey yor na parti mais jàppale ñu ci campagne en commençant par man mii nekkoon na candidat de la ville candidat yi nekk ci cinq communes yëpp mu leen doon bàyyi xel di leen gunge jàppale ci côté yëpp candidats yi ñoo ngi fi ñoom candidat yooyu tamit ñu sant leen gërëm leen ma doore ko nag ci jigéen ñi la galanterie oblige suñu mag suñu xarit suñu jigéen ñu yàgg nag lépp rafet muy ajaratuñ jéeme baax ñu sant tamit madame la maire bu Sam Notaire Aminata Kanté mu daj moom it lu ne sonn dégg lu ne ñu teg ci tamit suñu rakk di Khadija Maye Koor di maire golf ak suma mag suma xarit Tahirou Konaté di maire bu Wakhinane Nimzatt ak maire njaareem limaamu laay xalifa Ababacar Caam nekk suñu sëriñ ñooñu nag la waa yeewi jiitaloon waaw ñëpp nag jàpp ci président des jeunes yeewi département bu ma ko tuddee tudd na jeunes yëpp ñu sant ñëpp daal gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo ci nekkoon gërëm tam la presse parce que ñoom it dañoo bokk nag ci liggéeyu woy politique yi ñu sant leen gërëm leen bu baax maa ngi leen di tooñ démb ne leen j'étais votre candidat le candidat de la presse ñuy ree waaye léegi presse bi léegi am nañ maire waaw ñu sant ñëpp da ci amoon ay gaañu gaañu ay blessé ñu masawu leen bu baax a baax coono léeg lépp daal te xam ne nag mbir mi nekkul fet keroog bi mbir mi jeexee ñu ne kañ la ñuy organiser ay sargal ma ne jarul sargal caravane nañ waa Géejawaay waaye gis nañ jeex na ko defee nag comme niñ ko waxee woon rek monsieur le président altine lundi incha allahu rabbi ñu ñëw liggéey waxtaan nañu ak le secrétaire général de la mairie monsieur Diawara tout est calé ñuy xaar lu ci waay jàppoon tamit nga daal di koy dolli. ñu booloo nekk benn liggéey suñu gox bi nga xam ne ñun moom lañ am di géejawaay comme ni ko Omar Seck waxee sant tam njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma bokk fa ñu toog nii tey ak loolu baytul rasul sant tamit la communauté chrétienne parce que ñun moom dañ ci am ay présidente yoo xam ni lu ñu def ñoom tata Eugénie ay tata Émilie ak ñoom Joseph ñooñu lu ñu def si juróomi at yi fu ma dem il faut mu tudd leen ñoom nag dañoo am benn lien ak suñu président bii ñu séq yoo xamante ni nii nag moom El Hadj Malick Gakou ak la communauté chrétienne bi nekk Sénégal loolu moom débat boobu sax xam naa ne du fi xëj ñu sant leen gërëm leen pour vous diir que ni ñëpp jàpp nañ ci gërëm nos imam ci ñaan yi gërëm gërëm les délégués de quartier gërëm bàjjenu gox yi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la jeunesse gërëm tamit la diaspora géejawaay yi nekk bitim réew jàpp nañ ci jàpp boo xam ni buñ ko fi doon expliquer di ngeen ne ndax ndekete ñooñu doon nañ ñu bàyyi xel gërëm nañ waa jasporaabi bi doomu géejawaay yi nekk bitim réew même ñu nekkul doomu géejawaay sax te déggoon na ñun ñu ngi ci lii géejawaay niñ ñu sotlee bu ma neexee ma waxee ni ëpp na kon ñooñu tamit Mor Diaw moo ngi nii nekk témoin ñu boole waale leen ci bu baax a baax a baax waaw loolu daal tey moom moo nekkoon message bi nga xam ne moom lañ doon livré hmm? waaw bu ko defee nag kon ñoom moom gërëm nañ leen sant nañ leen bu baax di waa diaspora bi ñi nga xam ne tam ñoo nekkoon ci cabinet bi gënoon ñoo jege ñu ngi woon ci communes yi ñëpp jàpp waaye ñi nga xam ne tam dama àndoon ak ñoom benn instant dañoo bàyyi sax seeni parti nag topp ma en commençant par notre directeur de campagne di Mamadou Thiam nekk suñu directeur de cabinet moo nekk nii toog en blanc ñu sant ko gërëm ko bu wér Mbacke Gueye bu pur li mu def ci administration bii ci suñu élection yi li mu def ci wàllu massification moom Mbacke te kenn kenn kenn kenn du ko dégg kenn du ko dégg un travailleur un homme très digne xam naa lu tax muy utiliser le mot digne Mbacké ah. merci beaucoup le président Djibril Diop ñu ngi nii toog ak Ramatoulaye Bodian ñu naan ko Rama Bodian bu Pastef ah. moom tam moo ngi fii ñu ngi fee toog waaw en tout cas sant ñëpp daal ñooñu ak suñu porte parole bi nga xam ne mu suñoo sori monsieur le maire Mor Diaw bu grand parti ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy mbokk ak suñuy dëkkandoo ak waa géejawaay même ñu nekkul waa géejawaay sax te doon ñu jàppale ñu leen di woowaat encore une fois ma répété waat ko rek au travail waaw bu ko defee nag gaa yi lu ñuy xaar daal mooy la rupture waa géejawaay dafa am lu fi nekkoon ñu ne ñoom loolu gënalu leen yéen waa yeewi yéen lañ bëgg kon ñun bu ñëwee waxuma sax nañ leen def ñi fi nekkoon liñ def waaye dama bëgg ngeen tripler ko wala ngeen romb ko sax di dem ba gars yi ne kon ñii mën nañ lii te loolu yaakaar naa ni bu ci administration bi jàppee mooy les agents ñi nga xam ne tam ñoo nekkoon sur le terrain mais surtout les conseils ñu sant ñëpp nag gërëm ñëpp di leen xamal ne nag loolu daal lañ amoon luñ leen yeggee koon tey ci bis bii nga xam ne bis bu màgg la sant ñëpp gërëm ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammad wa